soo ko teralee waaye soo ko toroxalee doxal ko ku sa baay man baayam donte yaa ko man ku sa maam man maamam sa ko man ami internautes ñu ngi leen nuyu fi ñu leen daan nuyoo moom mooy Dakar Buzz point net ak Dakar Buzz TV ci seen YouTube bi tey nag ñu dalal gan goo xamante ni kenn dootu ko présenté Sénégal def na fi ay ay preuve am yàgg lool ci musique sénégalaise indi fi benn groupe yóbbu ko ci kaw après def carrière solo ba tey jii ñu koy woowee Maam Góor Diazaka Maam Góor ñu ngi lay ziar Baye maa ngi leen di ziar leen nuyu di nuyu waa Dakar Buzz euh, ñi nekk ci net bi yëpp di ko xool mu nekk site référence. Euh, maa ngi leen di nuyu di leen remercier nag ci yaatal bi nga xam ne ñëw ngeen pour ñu yaatal ko ci li nga xam ne moo xew. li nga xamante ne nii nag moom la ñuy waxtaanee yéen ñi ñuy suivre ci suñu mooy dakarbuzz.net moom mooy euh, li ci njëkk moom mooy euh, wàllum euh, SODAV li nga xamante ne nii mën nañu wax ne yéen artistes yi yéen a ko moom ndax bu doon woon yéen SODAV du mën a am mu ngi mel ni tey yi ñun ñuy wax bu télé amul woon du ñu am fu ñu waxee donc SODAV su existé ça veut dire artistes yi ñoo tax mu existé donc lan mooy tey jii woo bi ngeen woo woon presse bi waroon na def seen seen taxawaayu ñaxtu ñenn ñi nag dañu wax ndax seen problème ak ngóoni la ndax seen problème da a jotul seen xaalis wala ni ngeen koy jotee la donc lan mooy problème bi nga leeralal. voilà ñun problème bi ñu kaas problème forme la mooy tey SODAV bi ñu ko dee initier pour indi ko à l'unanimité képp kuy artiste fii da nga ci pour mu nekk. parce que dañ ne woon SODAV bu ñëwee BSDA moo fi nekkoon ñu ne bu SODAV ñëwee lu ñu daan am benn dinañ ko am fukk loolu la ñu wax ni ñu mooy am mais dañu seetlu ni bi SODAV ñëwee li waroon am. jotatuñ ko comme nañ ko waroon jotee mooy BSDA daf ñu daan fay ñetti yoon ci at bi ñaar ba ñetti yoon ñoom ñu ñëw boo xoolee ci 30 mois 4 fois la ñu fay deuxièmement tey jii lii xew foofu parce que ñun société bi léegi société privée la ñun ñoo ko moom donc ñoom ak jamono ni mu avancé war nañ mun a fexe ba lépp loo xam ne xew na fa mu yaatu ba artistes yëpp mën ci jot donc amul euh, leerul koi donc ci sunuy bopp kër gi sunu kër la ñun ñoo ko moom mais ni muy doxee leerul ci ñun léegi euh, li nga xamante nii moom mooy moom mooy moom mooy toogaanu ñaxtu expliqué ngeen sénégalais yi ba mu leer ci bopp ñëpp presse yëpp ñu ngi fa woon sànq gis nañ nit ñi aussi ni ñu woon mais lan moo tax mujjoo leen ko defee ci mbedd mi ngeen defee ko ci biir SODAV SODAV waaw xam nga dëkk boo gis dafa am ci lu mu tënku dëkk boo gis dafa tënku ci ay loi ñun ay sénégalais lañ ay artistes lañ un artiste c'est quelqu'un qui donne du plaisir mooy koo xam ne tey nit mën na stressé wala mu mer wala mu ñàkk xam dara nga jàppale ci ko mu xam ko bañ ko waree def tamit fa ñu war a dem dem nañ fa mooy dem nañ préfecture dem nañ police ba am firnde ni war nañ ko mën a def mais bi ñu ñëwee dañu xamal ni tey ji mbedd mi fii en ville gars yi duñ fi bëgg yenn manifestation yi ñun la ñun ñëwuñu def manifestation de violence dañu ñëw juste pour am loo xam ne métti nañu ñu wax ko mais comme loi bi bëggul ñu def loolu ñun ay artistes lañ doomi réew nañ luy doxal réew mi lañ bëgg ñu ne kër gi ñun ñoo ko moom nañu dugg ci biir kër gi doxale ko foofu parce que sunu kër la ñu dugg ndànk ci biir presse bi yëpp dugg ñu wax li nga xam ne moom lañ bëgg a wax xamal Sénégalais li li nga xam ni moom moo ñu metti léegi lu lu ñu bëggoon a xam tamit ci bopp sénégal yi moom mooy ndax ci kuréel ngeen tënku yéen artistes yi wala dangeen def li ngeen xamante ni moom mooy seen mouvement wala lan ak yan ak yan artistes ñoo ñoo ànd ci xeex. waa xeex bi mooy ñun bi ñu gisee ni soda bi mu ñëwee ba léegi benn yoon la ñuy fay ci at bi te benn yoon boobu sax mu lay fay xamoo ban dat la dañu dem ma nekk sama côté di wax groupe Pape Cheikh nekk seen côté di wax waa frère Guissé nekk seen côté di wax yeneen artistes yu bëri daal ku nekk nekk sa ruq di ñaxtu Pape bi ma déggee may wax mu woo ma téléphone comme ñoo bokk lu ñuy wax ñu ne pourquoi pas ñu créer benn collectif des artistes pour la lutte contre la SODAV parce que ñun tey ji SODAV suñu kër la bu ñu senoon mooy gën si kër yi mais comme gisuñu fa lu ñu neex ñu créé benn collectif te collectif bi yaakaar naa ni tey ji def nañu résultat parce que tey ji ñoom dem nañ ba waa SODAV ci boppam d'accord ni am na manque de communication notoire boo xam ni am na seen diggante ak alalu ñi nga xam ni moom la ñu yor donc tey jii nii aussi comme niñ ko xamee euh, maam góor ku xam jazaaka xamoon ne morceau bu doxoon la dox ci réew mi lool mën nañu wax ne bokk na ci tib yi nga xam ne ñoo gën a yàgg Sénégal parce que durée bi bi jazaaka def bi muy juddu ba at yi mu def année yëpp nekk ci sonnerie portable yi nekk ci ci xumbeel yi ba ci cant yi sax dem nañ ba Baye Fall yi fu ñuy woowee jazaaka boobu lañ doon lañ doon jël ak ton bi ba léegi nii est-ce que am na ci ñoo xam ne nag gis nañ ko jàpp nañ ne xeex bi xeex personnel la parce que la nga doon am ca jamonoy jazaaka amatoo ko léegi loolu lan nga ciy leeral non li ma ciy leeral leer na xam nga fii Sénégal dara du umpee man maa ngi fi damay jouer chaque semaine damay jouer les lundis di jouer les samedis maa ngi tëgg maa ngi génne ay album tey jii yaakaar naa ni boo duggee internet sàppe sama tur yaakaar ne ta tàppe turu artistes yi <laughs> xam nga ni bokkuñu sax tey jii amul benn artiste sénégalais boo xam ne moom a gën a représentatif tey jii boo nee maam góor foo nekk ci àddina boo nee maam bala nga naan góor mooy ñëwal boppam ci yu bari yoo xam ni maa ngi ciy yëngu parce que man je suis un mais dama nekk entrepreneur parce que ubbi naa fi ay club ay artistes di ci liggéey ma révélé ay nit yu bari am na la nouvelle génération ñu bëri ñoo xam ni sama loxo lañ jaar sama boîte de lañ jaar ba siiw parce que ñun tey nekkuñu ñu yoo xam ni. voilà ci troisième partie bi ci wàllu production voilà donc ñun nekkuñu ci ay da nga yéeg ak da nga wàcc ak euh, sa sound na ngi dox ak doxul ñun sunu sound mu ngi dox parce que dox bi mooy li li artiste di xaar ci soirée ci ci ci dox mooy ngay tëgg ay spectacle di am ay contrat di jouer mooy génn dem à l'étranger di mooy boo waree album boo waree def album def ko et puis nga nekk koo xam ni tey jii média bi média national bi tey jii yow yaa yow tey jii presse nga yor mais xam nga ni tey ku bëgg sa yëf am buzz sax da ci ciy dóor maam góor ku bëgg a mel ni Dakar buzz faaw nga bind ci maam goor wala nga wax ci moom loolu yow xam nga ñu pour ñu tëj sapiru sodaar bi parce que am na yeneen lu ñu war a waxtaane lu ci mel ni actualité bi soo ñu ko may ak say projet projet artistique ak production bi il faut ñu waxtaan aussi mënuñu ñëw du ñu profiter ci occasion bi parce que am na lu ëpp solo lii am na solo gaa mais fi ñu koy tëjee rek moom mooy démb ku ci mel ni Wally Seck gis mu def benn sortie di wax ne moom yat bi mu ngi koy dal yéen li ngeen wax gëmu ko parce que moom mu ngi jot a jot te mu a jotee donc loolu yow yan leeral nga ci mën a am ñii naan mais loolu non daf ni man sax li ma gis dama yaakaar ni dafa nii yat bi dalu ko xuma je pense genre yu mel noonu mais xam nga nit ku nekk ak ni ngay appré apprécier la chose ñun nii mun nañu wax ni yat bi daluñu parce que ñu ngi fayeeku moom mu ngi fayeeku ñun ñu ngi fayeeku ñun neewuñu ba léegi nii ne SODAV du fay xam la la ñuy kaas forme bi ñun combat de principe la du combat xaalis parce que yàlla ñuy dimbali tabarkàlla man mi amul benn waykat bu juddoo ci réew mi boo xam ne am na lu ma lay envier parce que li doomu aadama di wut yàlla may na ma ko tabarkàlla am na lu ma ci may bokk donc kon amuñu mais ku nekk am nga sañ-sañ ni yet bi daluñu ñun waxuñu ni yet bi dal na kii wala dal na kii forme bi la ñuy wax dafa am benn conseil d'administration boo xam ne moo fi nekk boo xam ne bi ñu ko dee fal lu à l'unanimité ñëpp ko woteel en 2013 biñ koy renouveler kenn yëgu ko. dañu dem wut ay carton d'invitation jox ko ñi leen arrangé ñu wooteel leen xam nga dafa am ay combat yoo xam ne c'est des combats de principe niveau bi fu mu yegg peut am na ñoo xam ne seen niveau yeggul foofu ñun bi ñuy bokk droit d'auteur boobu xam nga boo yu bëri yooyu dégg nii ñuy way wayu ñu woon donc ñun li ñuy comprendre ci droit d'auteur peut-être ñoom duñ ko xam mais ñun waxuñu Wally mu ngi fayeku man maa ngi fayeku keneen ak keneen a ngi fayeku waxuñu loolu de wax bi foofu wax bi fu mu nekk mooy ci forme bi mu am benn conseil d' boo xam ne dafa nekk SODAV di def ay tournée ak ay séminaire di jël ay per diem yoo xam ne c' est per diem yoo xam ne c' est exorbitant dafa bari donc loolu la mais ñun waxuñu ay yet bi dal na kii wala yet bi dal fii yet dalu fi kenn ñëpp a ngi sant yàlla alhamdulilah est-ce que comprendre la loolu la. ni moom mooy chapitre SODAV bi ak tey seen toogaanu ñaxtu bi ñu wax ci seen relation ak ak ak seen relation yéen ñaar lan la parce a am problème ah. non non non Ngone Ndour sama la. Ngoné suma sœur la keroog wax naa ko ko devant le ministre tey Ngoné Ndour maa ngi nekk ci média sénégalais yëpp di ma seetaan su ma toogoon léegi nit wax ko lu mu ko war a wax wala nit def ko lu mu ko war a def man dama koy faj ndax sama sœur la sama xarit la magam Youssou sama grand la suma xarit te loolu Sénégal yëpp xam nañ ko mais Youssou Ndour daf ni nit ki li nga moom buñ la ko joxul da nga koy jëli ñun neewuñu Ngoné dafa def wala deful lu baax wala loolu man tey bu ma doon voté ñu ne Ngoné lañ bëgg mu nekk conseil d' administration man dama koy woteel te pourtant toog nañ ci table bi am ñu nekk ci table ñoo xam ni bi ñu toogee devant le ministre dama ni man su ma doon voté am na ñu toog fii du ma leen votel du ma tudd nag mais Ngoné bu doon voté mën naa ko votel c'est ma sœur mais ñun li ñuy kaas mooy forme bi mooy structure bi parce que structure bi du Ngoné kese conseil d' administration bi 36 personnes la donc su doxulee faaw ñu tudd ko mais neewuñu ngoone lii ngóone lay ñun amuñu benn problème ak ngoone ngóone suñu sœur la jàmm lañ ko ñaan te jigéen la te jigéen bu mën góor la tey ñu ngi gis yi muy def ay seen di organiser ay seen petit gàll di def ay affaire di gérer xam nga guerrière la donc tey boo amee sœur mu takk tubéyam kii nu mu tudd wodd sëram di ñaafee da nga ko war a jàppale amuñu encore une fois ak ngóone benn problème man ngóone tey bu ma woowoon léegi ni ma maam ngoo damaa soxla ko tey xam naa ne man su ma ko mu ñëw wuyu ma donc problème personnel problème bi mooy SODAV dafa am benn structure bu fi nekkoon boo xam ne SODAV moo ko remplacé ni ko daan gisee ni mu daan doxaleeg ñun gisuñu ko ak SODAV ñu wax ko loolu rek la. ñu li ñu tëjee chapitre boobu moom mooy jël li nga xamante ne moom mooy li ñu tëjee mooy ngóone parce que ñun aussi jéem nañ def suñu liggéeyum journaliste jéem a jokkoo ak moom pour yéen mais buntu yëpp dafa tëju donc ñu ngi wax ne nag ni ñu leen jëlee yéen ngeen leeral tey jël seen manifestation bi jëm nañ ko jëlee noonu mu ne du ci wax donc di ko xamal ne li mu yor nii yëfi SODAV la laajuñu ko ay compte personnel am laajuñu ko vie de famille am ko dara donc mu ñëw wax ak presse bi que chaque fois mu jël SODAV saa yu ciy wax muy wax ak groupe bi nga xam ne moom mooy groupe frère am parce que ñun aussi SODAV ça nous intéresse et ça intéresse les Sénégalais donc pour ñu tëj chapitre boobu ñu wax ci actualité parce que ku la xam xam ne présidentielle yi passé si ñu fal le président nga bokk defal ko ay combat yu bari marche yu bari amoon na fi nga jëm ci jénn wax ci jàppale tey jii nii aussi ñu gis réew mi yënguwaat tey jii vendredi bi sax am na ay marché yu baree bëri actualité bi ak pétrole bi coow li am ci diggante pétrole bi ak Aliou Sall yow lan nga ciy wax waaw pétrole bi ak Aliou Sall yaakaar naa ni temps yëpp maa ngi ciy wax xam nga lu ñëpp bokk su ko nit yore dañ ko war di contrôler dama ni la confiance n'exclut pas le contrôle tey jii Sénégal depuis 1934 ba léegi ñoo ngi wër pétrole yàlla dogal fii ak cent ans dañ koy wax ci turu Aliou Sall ci ay contagam ki ñëw gis dafa jaar ci loxoom donc nag man damani ni li may bañ xama mooy lan mooy tubaab yi ñëw dugg suñu dëkk infiltré ñu jaxase ñu ñuy xeex suñu biir ñu jaar ci ginnaaw sàcc petrole bi man loolu lay bañ te occident yi bu occidentaux bu ñu bëggee taal dëkk dañ koy jaar ci ay des mouvements indépendantistes wala ñu jaare ko ci des opposants véreux yoo xam ni c'est les traîtres du pays ñu jaare ko ci ñoom pour taal dëkk bi tey wax nañ fi affaire Karim ñu créer CREI ñu enquête ko jàpp ko def ko ci kaso bi xalifa Sall wax nañ fi waxam xool nañ ko càmbar ko ñu gis ni def na wala deful gars yi jàpp ko def ci kaso bi tey Khalifa Sall yi ñu ngi wax loolu kii nu mu tudd euh, Aliou Sall ngi wax loolu procureur ñëw na ubbi ci enquête sénégalais yi nañ xam ne dañu nekk ci dëkk boo xam ne dafa am ay loi procureur na ko déglu déglu ay témoins su fekkee il est coupable dafa jël alalu réew mi ñu def ko ni ñuy def ku jël alalu réew mi su fekkee tamit deful dara ñu bàyyi jàmbur man loolu position boobu laa taxawee mais man li ma d'accordul mooy ay tubaab yi ñëw infiltrer suñu dëkk yebal fi seen i journaliste mercenaire ñu ñëw fii topp population bi naan 93 pour cent des populations c'est des pauvres dem Casamance di laaj ay mouvement yow nan nga mën a ñëwee ci dëkk jàmbur dem ci ay MFDC ay mouvement indépendantiste nga leen naan zircon bi nekk fii Sénégal lañ koy exploité yéen nan ngeen ko gis Sénégal lañ ko exploité xam dafa mel ni yow da nga bëgg a taal suñu dëkk Sénégalais il faut ñu yeewu ci loolu Libi Kadhafi était le meilleur président d'Afrique ndax Kadhafi dëkkam boo fa juddoo ba nekk mag soo amulee xaalis boo war a takk jabar ñoom état da lay jàppale nga am soxna ñu jox la kër di la fayal courant ndox Libi moo nekkoon seul dëkk dans le monde boo xam ne amalul benn dëkk bor tubaab yi ñëw bëgg a jël pétrole infiltré ko jaxase ko population fexe ba rey ko tey Libi yaa ngi nii tey sa mbokk africain moo fay dem sénégalais bu fa dem bu la jàppee dañ lay jaay cent cinquante mille francs comme ni ñuy jaayee xar dëkk bi am nekk ci instabilité donc nag loolu ñun dañ ko war a bañ suñu dëkk gis nga malay ngi nii suñuy voisin lañ gis nañ temps est passé doon nañu fa affaire Mouride ak Tidiane fa lañ jaar parce que xam nañ ni Sénégal dafa bëri ay fanatique pour taal dëkk bi boobu jàllul jaar nañ ko ci affaire musulman ak chrétien ñun dialogue islamo chrétien bi dafa jàll fii doxul léegi nag fi ñu ko bëgg a jaale mooy président falu na jël na alal ji jox rakam population yaa ngi souffrir rakam a ngi lekk te du dëgg bu dee dëgg ubbi nañ ci enquête nañu bàyyi enquête bi dox loolu laay wax mais opposant yi nga xam ni dañuy jox xale yi rendez-vous place de l'obélisque xale yi wàcc sur le terrain di reyanteeg policiers yi man de marche yi ma gisagum yëpp yow yaa ngi may interviewé soo si gisee benn yoon boo gis ab Abdou Mbaye wala Ousmane Sonko wala Mamadou Lamine Diallo wala ñooñu kenn rek wàcc ci doox nga wax ma ñoom ñëpp seen karkaar lañ toog ubbi vitre bi nank gaa yi leen dékk micro ah yow nga toog sa biir oto climatiseur di la ëpp nga bëgg a rey ay doomu jàmbur duñ ko nangu loolu laay léegi gis nañ léegi comme ñoom solution boobu la ñu jël. mooy que ne def ay sitting tous les vendredis nee nañ duñ ko dakkal fekk fekk fekk affaire bi leeru mais yow aussi gisoon nañ la ci moment présidentiel bi fu gars yi defee marche nga def contre marche génn aussi yow ak sa stratégie cette fois ci lan mooy sa stratégie. non man sama stratégie mooy tey Dakar Buzz site de référence la posé nga ma ci question xale yi nga xam ne ay doomu jàmbur lañ man daal xale yi sénégalais yi laay waxal jeunesse bi bis boo leen gisee jabari Abdou Mbaye wala doomam wala jabari Sonko wala doomam wala jabari Mamadou Lamine Diallo wala doomam ñu ne kii mooy Ablaye Diallo doomu Mamadou Lamine Diallo mu nekk ci kanam wàcc di dox man bu boobaa damay d'accord ñëpp wàcc dox mais nga nelaw ba 18h nekk VIP indi say gros bras ñu taxaw sa kanam oto nga wàcc sa vitre naan wooyu c'est pas normal tu sais ragal la ñu dañu bëgg taal dëkk bi xam nga booy dañuy wax nañu waxtaan dëggantaan tey élection bu amee ci dëkk dafa am ay opposants yoo xam ni dañuy am ay compagnie internationaux yoo xam ne dañuy waxtaan ak ñoom comme dëkk bi am na ay ressources naturelles dañuy waxtaan ñooñu jàppale leen seen campagne yooyu bis bu nguur gi changé contrat yi fi nekkoon ñoom ñu mën ko wëlbati jox ko ñooñu ñii nag yàlla moo leen njuuy ndax dañu yaakaaroon ni dañuy soto Macky Sall yóbbu ko deuxième tour ñu ñëw Macky dóor leen ba seen i daal xamuñu fu mu nekk bàcc yi Macky doon wax bàcc yi ba léegi moo nekk seen bopp yi boobu ba léegi ñi ngi wut stratégie bu ñu taale dëkk bi Idrissa Seck tey jii gisoo ko boobu léegi il est serein il est calme mu ngi ci ruxam nekk ci dialogue bi di waxtaan mais ñi nga xam ni c'est des opposants vers Sonko man ba ma ko dalee dégg ba léegi mas nga dégg damay poser question Sénégal kenn mosul dégg Sonko mu ne bis bu ñu ma joxee Sénégal dina ko jëlee fii indi ko fii Sonko il parle que de pétrole de sang et de l'argent pétrole xaalis deret Sonko loolu rek lay wax pétrole xaalis deret ñi fi nekkoon dañ leen a war a rey diw sàcc la diw diw sàcc lañu yooyu wut buzz américains yi ñëw nañ fii di ma enquête ci affaire pétrole Sénégal fekk ñooñu affaire Yaya Jammeh lañ doon laajte xam nga nañ xam nga sénégalais yi tamit booy ñun duñu ay seer quoi ay nante lañ Sonko bu yaakaar ne ñun ay nante lañ yow mënoo jógee fële ñëw fii ñun ñu juddoo ci town bi yeeru nekk ay nante dëkk ci dëkk bi nga bëgg a yaakaar ñu ay con lañ nous ne sommes pas des cons dëkk bi ñun ñoo ko moom ñoo ko bokk kenn du ko taal bu fekkee ñoom dañu yaakaar ni jël pouvoir bi ci wax monter population bi di génn di pour taal dëkk bi moo leen tax a jóg booy yi fi nekk doon ay policier dañu entraîné ba ceene booy bi fi yëngal waroo def fi loo fa dañ lay dóor ba nga yaakaar ni yàlla dafa tukki comprendre la nit ki da nga war a yeewu man doo jël sa njaboot làq leen yóbbu leen à l'étranger teg leen ci li nga xam ni euh, ci dans de très bonnes conditions ba pare man nga bëgg a ñëw di ma wàcc ci ay tali xeexloo du ko def du ko nangu loolu laay wax ñoom Macky Sall Macky Sall gagné na leen nañ xaar 2024 defaraat seen i affaire mais Macky gagné ni wax fast track ñu ni ko ñun dinañ fexe ba nga xam ni quatre ans wala cinq ans yi des doo gouverner wala doo am benn résultat loolu benn Sénégalais war a ko nangu loolu insulte la pour les Sénégalais yi nga xam ne ñoo woteel Macky Sall Sénégalais yi mënuñu dem ci mbañ gàcce mi woteel Macky ba pare ñoom ñu ni ko doo gouverner ne chaque vendredi ñu génn taxaw ci mbedd mi nit ñi dañoo am jot boobu ñu am liggéey chômeur yi rek ñoo koy def. d' léegi pour ñu pour ñu tëj chapitre actualité bi on va parler de la CAN les Lions yow ku ku yàgg yàgg jege gaynde yi ñuy ñuy waaj dugg ci CAN bi nii bientôt dans 48 heures mooy nekk suñu premier match ban message ngay lancé lion yi xale Aliou Cissé. mais message bi ma leen di lancer qu'il soit des gaynde au vrai sens du mot qu'il soit encore des gaynde au plus sens au vrai sens du mot parce que tey jii. boo ñu nekkee ni ay les lions de la teranga comme ni président defee discours am keroog président de la république keroog def nii dama bëgg ngeen bàyyi fii teranga bi boo leen demee ngeen doon ay vrai lion ngeen reyante te yaakaar naa ni ren nag yaakaar naa bu baax ni mooy at bu baax bi ñun daal li war mooy sénégalais yëpp nañu booloo à l'unanimité doon benn amul murit amul tiijaan amul layen amul xaadar amul man maa ñaanal lion yi amul maa def lii képp koo xam ne sëriñ nga tey nag yéen site internet yi laay waxal sëriñ yi nga xam ne dañuy wut buzz naan gis naa fi ay Ligue des champions bi waxoon naa Sadio Mané day gagné ñu tous il faut nit ñi yeewu ci ñooñu boo doonee sénégalais nga gis sarax boo xam ne équipe bi daf ko war a def te bu ko defee gañe boo amul xaalis boo ko defee nga gis ñu nga dendeel kenn ku nekk lamb la mu yor jox la yow nga def ko te bañ a nekk ci ay internet ak ay télévision di wax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar nañ ñaanal équipe bi mu gagné nga bëgg ma bëgg keneen ak keneen bëgg loolu moo am solo di nag féliciter di encourager le ministre des sports Matar Ba on n'a jamais eu un ministre des comme luy te dëgg la c'est mon ami mais c'est un travailleur tey jii c'est le seul ministre au Sénégal boo xam ni opposition ak pouvoir ñëpp ko bëgg parce que démb bi may seetaan lamb ji dama gis Bamba Fall c'est un opposant farouche mais keroog lu mu wax def nii nañu bàyyi politique bi nag te liggéey te Matar ba mii mu ngi liggéey xam nga wax sa mbaaxuwaay du wàññi ci sa baax dara donc nag nañu ñaanal Lions yi ñaanal la ministre ñaanal l'entraîneur parce que Sénégal foo toll da ngay dégg ñu naan Aliou Cissé xamul dara waaye d'accord nit mën nga juum man mii di wax yow mës naa taxaw ni xamul dara parce que émotion jàpp na ma ci mondial bi ma wax ko mais nag résultat yi mu fi def bi fi Lyon 2002 yi jógee léegi amul beneen entraîneur bu ko fi def Giresse ñëw na fi defu fu tous Kasper Zak ñëw na en plein compétition mu bàyyi ñu fi dem yoonam Guy Stéphane defu fi tous moom ba mu ñëwee ba léegi dëgg dëgg neex yàlla équipe baa ngi progressé ñoo ngi dem mais nag bu kenn gëm ni ñun ñooy meilleure équipe d' Afrique déedéet du ñu meilleure équipe d' Afrique de xam nga kan mooy meilleure équipe d' Afrique kii mujjee jël kii mujjee jël coupe d' Afrique ñun mësuñoo am coupe on a de très bons joueurs nag mun nañ wax ni am nañ ay joueurs yu baax. comprendre la mais nag am joueur yu baax ak nekk ki fi mën c'est deux choses différentes ki fi mën mooy ki yor pot bi bis bu ñu demee ba jël pot bi nag ñoo fi mën te nañ ñaan yàlla yàlla dimbali ñu coupe bi ñëw tabarkàlla ci jàmm. léegi nag bu ñu jógee ci sport bi dañuy def directement ci ci musique bi parce que sport ak musique mën nañu ànd ku gis ni da waxee xam ne ku xam football nga mais côté production maam boobu ñu ñëw ci ci carrière Euh, lan lañ mën a xaar ci ci ci ci yow ci ay projet wala nang waaw man fi mu toll nii maa ngi ci projet boo xam ni sama doom Talla Diazaka mu ngi nekk studio ah, <laughs> waaw mu ngi nekk studio di liggéey di def albumam te Diazaka production ñoo koy produire mhm. beneen bi nga xam ni moo ci topp mooy man fi mu toll nii maa ngi suma album international parce que nag nañ wax ni marché Sénégal bi dafa tuuti quoi te nag dañu bëgg a dem ci yeneen horizon moo tax fi mu toll nii maa ngi liggéey ak euh, sama benn xarit Zeynul ci ñu job benn album boo xam ne album international la ci laa nekk nii damay tukki tey mais xam naa su ma ñibbisee rek ci laay nekk incha allah te tukki bi may tukki su ma jógee fi may njëkk a dem ci loolu laay doxi mais su ma ñibbisee incha allah euh, fu ma fa jógee damay dem cette année yi Coupe d'Afrique su ma jógee nag su ma ñëwee rek nekk ci carrément album bi incha léegi ta taala moom kaña lañ mën a xaar produit ak euh, lan ak lan yan surprise moo ci moo ci am ak kañ nga ñu koy indi aussi ñu waxtaan ak moom. voilà moom single bi singalam bi génn na je pense démb démb démb ah, voilà démb wala bërki démb temps yi ñu ngi nekk ci promotion affaire am bi donc mu ngi préparer benn concert gratuit bu mag boo xam ne xam naa peut-être euh, dañuy xool ndax Rufisque la koy defee wala mu defee ko fii euh, ci terrain bi nekk parcelle fii. Akapes xam nguñu ñu ngi xool daal. xam nga donc nag bu ñu bu paree ba pare pour def concert boobu dinañ ko jàppale ci mu def ko ACAPES wala mu def ko au jardin public de Rufisque pour bégal ay fansam et puis lancé wu carrément gars yi xam nga Sénégal jàppale ko quoi mu dem parce que mu ngi ci yoonam mu ngi ñafe quoi alhamdulilah donc euh, li mu mën a wax daal mooy en grosso modo mooy ñu ngi ci liggéey bi tey ci fan yi di ñëw li Sénégalais yi di xaar incha allah muy album Talla ak sama album international dina génn. donc ñu ñu ñu ñu tëj émission bi tey ñu ngi dalaloon ki nga xamante ne nii moom mooy Mame Goor Diazaka ñu euh, ñu gën ko xam ci artiste bu mag a mag tey nag mu woote woon waxtaan ab ndaje waxtaan bu jëm ci SODAV ni SODAV di doxee yenn saa yi seen payoor gi dañ koy yéex a jot. wala du ñu xam sax kañal lañ koy jot loolu lépp mu nekkoon ay leeral yu mu indi relation ak Ngoné ñu dégg mu wax ne amuñu benn problème ñoom ñaar li muy wax moom mooy sodaaf doxalin bi buñ ko mënee coppi ñu coppi ko ndax ñoom waxtaan lañ ci bëgg ndax kër gi seen kër la mënuñu ko yàq buñ ko yàqoy ñoom ñooy li nga xam ne moom mooy actualité mu ñaax jeunes yi yeewaat leen ci li nga xam ne moom moo xew ci jamono ci waxtaan nañ aussi ci production muy nga a jënd doomam di a tëj émission bi fii jox ko mu nuyoo ak yéen tàggatoo ak yéen jox leen dig daje ba beneen yoon. remercier waa Dakar Buzz bu baax nekk nag site boo xam ni man c'est la première fois ma def ak yéen euh, émission mais damay dugg chaque fois ci site bi yàgg naa ci dugg parce que chaque fois ma gis ñu def article ci man mais comme yàlla mu ngi door a dox dogal ñu daje man ak yéen jàpp leen ni man dakaar Buzz laa bokk saa yoo leen ma yitewoo woo leen ma lépp loo leen xalaat nii war naa leen ci mën a jàppale ci wàllu information. ci wàllu nit sax koo leen bëgg a jot te mun leen ko jot man dama bëgg ay jeunes yu yoo xam ni liggéey daf leen ñor donc nag soo gisee ay jeunes yoo xam ne ay ñafekat lañ xam nga da war a taxaw pour jàppale leen parce que ñun ñi ñëpp nii lañ démarré donc nag maa ngi leen di féliciter di leen encourager su fekkee nag nii dañu wax dara loo xam ni luy déranger la wala loo xam ni dafa ërte ay nit ñun jubluñu ci loolu liñ ci jubla mooy wax dëgg te yàlla tax et puis liggéey te yàlla tax kenn dara jàmm lañ yéene ñëpp di ñaanal yàlla Sénégal comme ñu ngi ci coupe d'Afrique Sénégal yàlla may ko coupe bi ba coow yu bari yëpp ñuy wax yàlla jeexal ko ci jàmm wasalaam